صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق الحمد لله ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ngërmaane dem ci sang bu tedd bi Mawlana Cheikh Ahmada Tidiane radiyallahu anhu di ñaan ngërmaane dem ci xalifaam bu tedd ba saahibul fayda Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu eh, sëñ bi ñu ngi kontaan bu baax di sant yàlla bi nga xam ne moo ñu may ñu fekkewaat bés bii bu màgg bii nga xam ne bés la boo xam ne Seydi Ali Harazimi wax na ci message ne su tijaan yëpp xamoon li nekk ci bés bi ci ay ngëneel danañ ko jàpp mu nekk feet alhamdulilah nag bu ñu yàlla mayee góor gu màgg muy Seydi wa Mawlaaya si Xasan Dem feeñalal ñu guddi gi jox ñu guddi gi wan ñu ko di ñu ci jàngal tariqa ak ay askaaram ak ay aadaabam alhamdulilah daal ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne daal teew ci bés yi mel nii nit ki dana ci jële njëriñ yoo xam ne fu teewul ci bés yi du ko am Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu bés mos naa jënd ci suuqu Tilmisal yu aaliji jawil aati wal amwaat dafa jénn rek ku ko gis ñëw nuyu ko aajo boo amoon rek mu faju soo amee jàngoro mu wéew soo ràggee mu dëñ am faqih boo xam dafa nekkoon ci wet ga mu ñëw ci Seydina Cheikh ne ko eh, yaa Cheikh Tidiane yi al indaka min tubil xurub Cheikh Tidiane yi ndax amoo ci luy faj xol Cheikh Tidiane yi ne ko idhab ila sajratil yaqini wa xuz min a anqaniyati wa awaaqa tadbiri wa shima tawaaduri ba mu jeex mu ne ko nag tanaaqidu laka subatan fa sabaha min aysulaa a ila allah Cheikh Tidiane ñii daf leen a faj waaye faqih bi moom daf ko bindal ordonnance ne ko fajul tey faje kon nag yooyu mu ngi ko amee ci teewaayu rek foo xam ne Seydina Cheikh mu ngi fa teew kon nag bés bi Seydina Cheikh mu ngi ci teew di bés bu màgg ci ñun bés bu kawee ci ñun bés la boo xam ne suñ bëggeel ci Cheikh Tidiane da ci gën a yokku bés la boo xam ne suñ xam-xam ci tariqa Tidiane da ci gën a yokku bés la boo xam ne dañ ciy daje ñun taaliba tijaani di ci bégalante bul fàtte ne yonent bi waxoon na Seexu Tijaani ne ko waxal sa taaliba yi buñ lowante ndax ku ci lo sa moom rek man la lo waaye nga déggee ci ne it Seex Tijaani wax na yonent bi wax na Seexu Tijaani ne ko waxal sa taalibe yi ñuy bégalante ku ci bégloo ab taalibe rek mën nga ko bégal bés bi bésu bégalante la bésu ndokkelante la bésu feddali suñ kóllëre ak Mawlaana Seex Ahmad Tijaan feeñal suñ cofeel jëm ci moom waaye nag maxaama yi ko yàlla yégaloon yàlla yéegal tëbbuñu ci maxaamaam yi mhm. waaw guddi gi am na taarix comme li ma la wax léegi rek mooy ne Cheikh Hassan Deme radiyallahu ngi njëkk a defee guddi gi ci àngal tukulóor fii ci Kaolack li waraloon sabab bi mooy dafa amoon suñ mbokk tukkulóor yu fa nekkoon am ñàkk déggoo bu am ci seen diggante mu ñëw di leen waxtaanal ci taalibe tijaan nan la war mel ci mbokku taalibe tijaanam ne leen yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam wax na cheikhu tijaani ne ko wax sa bu ñu buñ lorante ku ci lor sa maam rek mën na lor di leen waxtaanal di leen waxtaanal ba agg ci guddi gi di leen wax ak ngëneelu guddi gi fekk soreetut Cheikh Hassane Deme radiyallahu anhu ñu sàkk ko ci moom mu defal leen ko E, taarixu guddi gi nga gis na kon guddi gi guñ continuer di ko def tijaan yëpp di ko def dana nekk loo xam ne dafay boole këwu tijaan yi dafay boole taaliba tijaan yi ñu gën a nekk benn ku na xam na ne Sénégal daanaka këwu tijaan yee fi ëpp mais dañ ko muuree ay sant ki nekk Tiwaawoon yaakaar na ne ki nekk Medina Baye dafa nekk beneen tarixa bu mu nekkut ki nekk Medina ba dégg nga de Tiwaawoon dafay yaakaar ne ki nekk ca maam euh, dégg nga euh, ci maam Amadou Ba Ndiéguène leneen la nekk fekk benn tarixa bi la soo demee ci Alaaji Omar Ndaw moom nga fay fekk soo demee Njaasaan moom nga fay fekk benn tarixa bi la benn lazim bi la benn wasifa bi la benn sëriñ lañ am moom rek mooy tëbbe mooy Mawlana Cheikh Ahmada Tidiane radiyallahu anhu moom la bàyyi waxoon ne ko ne ko antal antal mu middu fal xayru muftamiddu Cheikh Tidiane yow rek yaay tëbbe ku dul yow rek dañ koy tëbb moo moo ne kullu suyuuxin axadu anni sëriñ ñëpp ci man leen jàpp min asri sahabati ila nafxi fi suuf ca sahaba yi ba léegi amul benn sëriñ boo xam ne kii nekk sëriñ di tëbbe di jëriñ loolu ci man Cheikh Ahmada Tidiane ci nga jàpp wax ne ne laa yasabu waliyun wala yusqa illa min bahrina amul benn waliyu boo xam ne dana mos dara ci wilaaya dana ko naan loolu ne ci sama géej la naanee kookoy Mawlana Cheikh Ahmada Tidiane kon moom moo servir mboolem sëriñ yëpp Mm-hmm. Mm-hmm. waaw alhamdulilah gis nga euh, tabax bi ñu tabax Sénégal yaakaar naa mi ngi mel ni tabax bii nii birig yi am na mooy population bi ak xeet yi ak tarixa yi li mën a jox ay lan dafa am ciment bu dox ci seen diggante yaa ngi laajte Sénégal naka la ñuy boolooyee pour mën koo defal damay wax ne Sénégal dafa mel ni tabax rek yonent bi sax xoolaan wax na ne jullit ak mbokk julitam kel bundiyaan dafa mel ni rek tabax dama bëgg a wax buñ bëggee tabax Sénégal mu mel ni ab kër goo xam ne dana ëmb nit ñi dana enu nit ñi il ñu nangu ciment dox suñu diggante ciment boobu nag mooy jàngale yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak jàngale mag ñu baax ñi mooy suuf ak ciment lañu boole jaxase ko mu dox ci diggante birig yi ngir mën a tappaloo ngir mën a ëmb nit ñi enu nit ñi suñ bëggee réew mi baax suñ bëggee jamono ji baax suñ bëggee lépp normal il faut ñu delluwaat rek ci jàngale yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay jikkoom jikko yooyu noonu ak njàngale moomu ci la Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane nekkoon ba yéeg maqaama yi gën a kawe ci la Mawlana Cheikh Ibrahima Niass nekkoon ci la mag ñu baax ñëpp nekkoon loolu rek mooy defar mooy roy yonantu bi topp ay waxam topp ay jëfam. ci bi nga xamee ne Mawlana Cheikh Hassan Deme moo ko tàmbali waaye tey amul fooy dem ci Sénégal lu na nga fa fekk ñuy dundal Katmiya ñun loolu mooy satisfaction bu gën a mag ci ñun mooy tijaan yëpp xam guddi gi di ko fuglu di ko di ko di ko def di ko màggal ak foo ko mën a defee waaye nag alhamdulilah cosaan li fii la al fadlu lil mutaqaddimi ngëneel mi ngi am ci ki nga xam ne moom moo tàmbali mbir mbir yi moo tax eh, ñi daal suñu initiative bi nga xam ne moom lañ ci am mooy fexe daal bépp kër tijaan bu nekk ci àddina wala bu nekk fii ci senegal mu yëg guddi gi di ko màggal ndax dana may dana ko may occasion mu dajale taalibe tijaan yi jàngal leen kan mooy Cheikh Ahmada Tijaan yi ñu xam taarixam Cheikh Tijaan yi soo jàngee xam soo jàngee ay waxam suñ la jàngalee ay jëfam. soo ko royee rek di nga nekk nit ki nga xam ne mooy ki gën di nga nekk citoyen bi gën di nga nekk jaamu yàlla bi nga xam ne mooy jaamu yàlla bi gën a sell kon daal suñu ittee mooy lan jàngale Mawlana Cheikh Ahmad Cheikh Ahmad Tidiane tasaaroo ñëpp xam seex ñëpp bëgg Cheikh ñëpp roy Cheikh mhm. macha allah jërëjëf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 Euh, di sant yàlla ci xéwal bu màgg gi mu ñu mu muy bisu wala bëccëgu màggal guddi Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ñu koy màggalee ci ëttu ñu ci yàlla bu mag xalifa Cheikh Tidiane muy Mawlana Cheikh Hassan Deme radiyallahu anhu ndax yàlla ay xéwalam da koo mën na laa may xéewal ci martaba bii te du la may xéewal ci beneen martaba martaba bi gën a kowe waaye yàlla xéewalam yi ñuy may ñun dañu seet tànnal tànnalaat ñu ci biir tànnee mooy mënoon nañoo màggal bis bi ci màggalee ko ci beneen barab wala màggalee ko ci jeneen jëmm waaye alhamdulilahi rabbil alamin may nañu ñu yëg bis bi màggaayam ak koweem mayaat ñu marasaaniya ñu mën koo màggalee ci ëtt wali yàlla bu mag bii muy Maolana Cheikh Hassan Deme radiallahu anhu nga xam ne bis bi da tolloon fu rëy rëy képp ku xam Cheikh Hassan rek xam nga Cheikhu Tidiane radiallahu anhu xam nga ko ci ay ci ay eh, ay jotaayam mooy ay conférence am xam nga ko ci ay bindam xam nga ko ci njabootam bëggam Cheikhu Tidiane dafa maase ci lépp nit danay bëgg yenn saay te bëgg gi du maase mu bëgg sëriñam ci côté bii waaye côté bee mu gàttañ ci waaye Mawlana Cheikh Hassan Deme radiyallahu anhu ci léppam ci zamaanam ci makaanam ci alalam ci njabootam léppam Cheikhu Tidiane la radiyallahu anhu moo tax dañuy sant yàlla bu baax a baax bi mu ñu xéewalalee ñu ànd ak Mawlana Cheikh Hassan Deme radiyallahu anhu kon bis bi màggaayam kenn mënu koo natt moo tax yàlla màgg gi màgg moo tax nëbbee na ko nu ne waaw boo xoolee tey euh, ci zaahir rek. nëbbu gi foo ko natt rek weesu na ko waaye ñun am nañ waliyu boo xam ne nii ay bëtam neex na ay noppam neex na ba kanam neex na ba mën naa ci bis yu mag yi ba euh, génneel ñu bis bii nii tegal ñu ko fii ci Medina ba ñu koy màggal kon alhamdulilahi rabbil alamin bis bi màggaayam daal sëriñ bi ci gàttal foo ko natt rek weesu na ko ndax mën nga ko nattee ci Maulana Cheikh Hassan Deme radiyallahu anhu imaam gannaaw bu ñu la nuyoo de ziar la ndokkeel ne Thierno Assane Dème moo ko initié di magal Cheikh bi nga xam ne bàyyi nga ko Médinatoul Houda ñëw fii nii eh, teew si eh, ban sentiment nga dugg ci li nga xam ne moom mooy ci li xam ci taw ci kat bi. waaw sant ba bu ñu ngi wax alhamdulilah eh, di sant yàlla ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci bërëb bi. waaye tamit di leen nuyu yéen ñëpp te eh, Barham TV Universel Media di leen gërëm bu baax ci taxawaay bu rafet bi ngeen taxaw ci tasaare diine l'islam ndax ku wax katmiya nga wax Cheikh Ahmad ku wax Cheikh Ahmad nga wax tariqa Tidiane ku wax tariqa Tidiane nga wax l'islam donc lii wala nga ma wax ni mun nga wax ni rek boo waxee katmiya dëgg-dëgg katmiya mooy faydu mooy njëriñ bi nga xam ni doomu aadama mun na ko jëree ci diinaam ci tariqam ba nga xam ni dañ ci mën a jëriñu ba jëriñe waaye nag loolu yëpp ñu ngi ko xamee ci jëmm ji tëdd fii mooy Thierno Assane ndax jëkk mu koy feeñal yaakaar na kenn xamul walla bu fekkee xam nañ ko tamit ci téere yi lañ ko xam waaye luñ ci xam bariwul loolu nag moo tax ñun ñu jógee ba Dakar ñëw feddali koleere ak suñu diggante ak eh, ak kër gi suñu diggante ak Thierno waaye suñu diggante tamit ak njabootu Thierno te ki nga xam ne moo taxawee loolu mooy xalifa Cheikh Mouhamadul Kabir Dem moom loolu moo ñu jëlee Dakar ba fii ñun délégation ñi nga xam ni ñu takku ak ñiy jóge dakaar ñu jóge Jurbel ñu ñëw ngir feddale loola loolu rek moo ñu indi léegi nii ñu ngi ci ay tànk tamit bëgg delluwaat dakaar donc dañu jóge Dakar ngir ñëw teew feddali kóllëre bokk ci mbir yi ndax dañ ci mos a bokk waaye nag feddali kóllëre googu loolu moo tax ñu ñëw fii léegi daal lii la ñu amoon ci wàllu googa fekkee am na luñ ci mën a jóg tamit ñu wax waaw lii de xéewal la bi nga xam ne bu yolante woon àddina bi xam lu mu doon waaye nag dañu jàppane rek ñii ñoo ko moom ñi ñoo ko moom waaye xat katmiya du tijaan yi rek ñoo ko moom jullit yëpp a ko moom katmiya mooy mbir mi nga xam ne xéewal bi yàlla sotti ci jaamam indi ko pour yàlla lu mu am rek jaamam yi ñoo ko moom da ko indi pour jaam yi jariñoo ko ah, yàlla def nag xëy na fu mu nekkoon ba nit ñi mun ko jëriñoo xëy na xamuñu fu mu doon yàlla indi góor yàlla bi nga xam ne ku toll na Thierno Assane Deme ñëw mu ni ñi nag li ngeen soxla mu ngi nii ñëw leen ma indil leen ko ngeen jëriñoo ko te Thierno Assane Deme ngeen ko xamee nit yàlla ki nga xam ne ko amoon cër la wala ko am cër la ba tey ndax bu fekkee Cheikh Ibrahim Niass ku toll na Cheikh Ibrahim Niass nee na ko nihayatul awliyaay bidayatu ko fi mali yi fu ñu yem ci maqaama yow foofu nga tàmbali jëm ci kanam kooku kenn xamul fu mu jëm kooku nag bu waxee kàddoom day taxawee kàddu Cheikh Ibrahima Niass kàddoom day taxawee kàddu Cheikh Ahmad Tidiane kàddoom day taxawee kàddu yonent bi waaye kooku dëgg-dëgg bu waxee ku am xel dang koy déglu ndax kooku lu la wax lu dul lay jëriñ te bu la moytandikoo li rek lu lay loor la nekk kooku nag bu ñëwee took jël jotam di ko di ci waxtaan di ci def lu ne pour nit ñi xam ko loolu yellante woon ñëpp xam ko bu boobaa danu ñëw di teew ci lii wala bu nu mënul teew sax fu ñu nekk ñu def fa ñu def fa katmiya yàlla def na nag comme garab bu barke la garab bu am njëriñ la tey àddina bi yëpp ñu ngi koy jëriñoo foo dem tey ñu ngi ñu ngi def katmiya man maa ngi nii di dellu dakaar dañu am foofu katmiya moo tax may dellu foofu am na beneen bi nga xam ni ñu ngi koy def euh, Mauritanie ak yeneen ak yeneen loolu yëpp ci barkeem moom Thierno Assane waaye nag mooy ni mbaax a ngi njëriñ a ngi nii barke a ngi nii ñëw leen jël laajunu leen dara innama nutimukum li wajhillah leen koy jox di leen di leen ko jox mu nekk ñam bu am njëriñ waaye ngir yàlla rek laa nuridu minkum jazaan wala shukura soxla wuñu leen ci yéen dara lii daal euh, mun naa ko wax ci lii waaye nag lu yaatu la ndax doo xam fooy tàmbali ak fooy fooy fooy yem ndax loo wax lu baax rek ci la bokk waaw waaw waaw amiin yaa rabbi macha allah gannaaw buñ la nuyoo ndokkeel la ci bés bi nga xam ne eh, yéen koo jëlee si seen waajur góor Thierno Hassane Dème mu nekk ko njëkk a taxawal Sénégal fi mu toll nii àdduna bi yëpp sax ñu ngi ko ci roy mu bésu màgg boo xam ne am na fu leen ko jëlee ak fi nga xam ne foofu la toll tey boo nuyoo ñi nga xam ne ñu seetaan eh, naka ngeen def boo mam succès bu toll nii. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ci eh, ci bés bi xam ne dafa dellu si at muy leela katmiya Euh, li nga laaj moom mooy dañu jaar rek fii fi góor gi jaara woon maanaam nim ko commencé woon fii ci Sénégal mooy ki nga xam ne moo ko wane xëy na téere yi ñoom bindoon nañ ko waaye mooy ki nga xam ne mooy ki ko njëkk a feeñal maanaan màggal ko euh, su ma demee wax ne su fekkee ne euh, kii bi cuuraay la kat mee cuuraay la séance dem mooy xal bi ko ci bi ko génnee kon nag euh, ci mu ko commencé depuis boobu ba quatre-vingt-neuf yàlla def mu jug mu génn àdduna ñun njaboot gi ñu dajalewaat daal di continuer ko ba fi mu nekk nii alhamdulilah àdduna yëpp tey foo foo làmb tey ci àdduna bi rek pour tijaan nekk tey mu ngi koy màggal kon nag euh, ñu ngi sant yàlla bu baax ci bës bi nit ñaa ngi jugee fu nekk di ñëw. ñu ngi nekk ci programme bi depuis démb ba tey. Hmm. waaw moom ñun suñu waajur Cheikh seen dem ci lii lañu yar maanaam ci bennoo euh, am na benn bés mu yónni ñu Dakar. Euh, benn sikkar bu fa amoon ci rajo mustafaaka xam ne moo benn sikkar mu yónni ñu ñu dem ñu teewal ko fa man ak Cheikh Habib Cheikh Abdoul Baaxi ak euh, Baye Mamoun yàlla def bi biñ demee ba ñëw ñëw wan ko dem neen ba ñëw mun nañu toog leen ñu toog mën leen yéen dama bëgg ngeen nekk benn dama bëgg ngeen jàng dama bëgg ngeen di euh, wasifa ngeen topp seen diine te ngeen nekk benn ata kenn su amee mbubb ñaari mbubb kenn ku amoon yëkkati benn bi jox ko si loolu lañu ñu moom tamit kàddu yooyu tamit la ñu mujjee wax ba tax na loolu nag lañ topp ba tax na bi yàlla defee mu génn àdduna euh, ñu nekk ci wax jooju ba tey ñu organiser seen koo xam ne ku nekk la nga ma ne ma jiital la ci euh, Cheikh Abdoul Baaxi xam ne mooy coordonné euh, kër gi ak xadra Cheikh Hassan Deme yëpp nekk coordination léeg-léeg katmiye bi tamit programme bi organisation bi ñu teg ko ci loxoom wax dëgg yàlla euh, mu taxaw ci taxawaayu bu mat sëkk euh, ba tax na tey fi mu yegg ni tey taxawaayam ak volontéem ak léppam la ciy def day def alalam bay na sax ay tool tool ba ñor mu jaay ko ci suba fët xaalis bi yëpp mu def sotti ko ci katmiya bi benn dërëm lekk ko ci waaw loolu daf na ko dafati ko lu mu am su katmiya bi jël fàtte na lépp daf na ko ci moo tax tey mbir mi ñëw yegg si ba fii organisation bi yegg fi yëpp taxawaayam la moom ak ay rakkam ak ñi koy jàppale ak muqaddam yi yëpp ñu ngi ànd ak moom yëpp ci loolu kon nag yàlla def na maanaam mission bu teg boobu yore boobu mu yore ko maanaam jël tamit su ma yeneen rakk yi tamit tafal leen ku mel ni Cheikh Taha dëgg-dëgg moom mu dénk communication moom ci mu taxaw ci taxawaay bu am solo dégg nga maam ak keneen ku nekk rek taas bi mu la dénk rek yaa ngi koy rafetal waaw moo tax tey su ñuy am ku ñu gërëm Cheikh Abdoul Baaxi la ñuy gërëm ndax tey su mbir mi see fii ba ñëpp yéem euh, programme bi ni mel taxawaayam la ci ci coonoom ci itteem ci alalam du ko fekkee. at bu nekk rek day gis ne lépp lum dencoon da ko cay def waaw comme ni ma ni ma wax ci gannaaw rek su fekkoon na tey nawet bi fekkoon na mu fekk bayoon neen ba jaay lépp la ci def waaw daaw jéeg dafa fekk nawet mu bay jaay dugubam jaay gerte yëpp mu lépp mu daal di koy def ci ci ci quatre bi waaw loolu nag yéene moom itte bi mu am kenn ku nekk ci ñun kenn ku nekk ci rakk yi mag yeeg mbokk yeeg xale yëpp yaa ngi am yéene boobu la am def ko alhamdulilah te ñu xam ne Thierno ñaari bés la amoon wala ñett programme la Thierno amoon ci at mi mooy layla katmiya ak ziar Mawlana Cheikh Ibrahim ak gàmm waaw gàmm waaw kon nag ci noonu lañ organiser kenn ku nekk rek am na li nga mën ñu féetale ko ñu jël sa Habib dem xam ne moo topp ci man ñu nekk mu nekk imaamatu ci xadara si Xasan Dem fépp fuñ teew foo xam ne war nañ jiital ku julli moom lañ jiital mu julli fekkee sëy war nañ ko fa takk tamit moom moo koy moom moo takk sëy beeg yóbbu. waaw mooy euh, taalibi moom lu koy jëriñ ci xadara sëriñam mooy mu rey sëriñam mu jël seetu def ko comme sëriñam lépp lu sëriñam daan def mu topp ndoor ko ci lépp lum daan digle mu topp ko lu daan tere mu bàyyi loolu mooy jëriñ taalibi te taalibi mahabba bu ànd ak ixlaas ak sidq ñetti yi mooy jëriñ taalibi tamit nga respecté sa peyu sëriñ ndax xadara damay wax ne xadara Cheikh Ibrahim moom ku bëgg a jëriñu rek foog nga jox ko respecté respecté pays bi respect bi nag pour nga man ko al foog nga nekk taalibe waaw nekk taalibe mooy li nga xam ne mooy jëriñ dégg nga maam taalibe bi mooy jëriñ ki nga xam ne dafa sóobu jëm ci yoon yàlla kenn te xadara Cheikh Ibrahim loolu mooy taalib mooy sóobu yegg ci pays yàlla kenn la sóobu boobu nag ñuy sóob maanaam nañ jaar ci jaar-jaari mag ñi mag ñi nañ daan tarbiya di tarbiya seeni i ñuy tarbiya noonu jikko yu ñu daan def ci ñoom ñuy def ko ci nañ leen li xam ne luñ la daan diggal ñu topp suñ toppee jaar-jaari mag ñi rek kenn du tarxis waaye su fekkee ne la mag ñi daan def ñu teg ko fële indi leneen lu bees su boobaa tarxiis rek mooy xaw waaw kon nag ku ku jëriñu rek da nga jaar fi mag ñi jaaroon da nga mag ñi topp digalu mag ñi bàyyi seeni tere waaw. waaw bàyyi moom euh, euh, bàyyi moom ni ko war mooy ku xam ne Cheikh Ibrahima itteem yëpp moo di diine ji jëm ci kanam itteem yëpp mooy tarix bi jëm ci kanam itteem yëpp mooy faydu bi jëm ci kanam lii moo dina xam ne moo doon itte Cheikh Ibrahima ci loolu la doon liggéey ci loolu dox wax dëgg yàlla lim def lim liggéey ci lislaam kenn liggéeyu ko lim liggéey ci tarixa bi kenn liggéeyu ko kon nag war nañ ko jox gëddam te suñu leen wóoree ne ne lépp luy faju ci moom lay fajoo kon war nañ jox moo gë Mawlana Cheikh Ibrahima gëddëm ndax ñuy wax ne bàyyi mooy solution kon solution alam bi bàyyi la kon nag nañ jox bàyyi gëddëm respecté xadra bi man loolu lay wax toujours nañ respecté xadra bi ndax xadra bi ku ci ku ko respecté tamit xadra bi moom fa ne woon ma nga fa Cheikh Tidiane waxoon ne law saamaxtu fa innal martaba laa tusaamix Cheikh Tidiane ne man même su ma baalee martaba bi moom du baal te martaba boobu ba léegi mu ngi ci bi ba léegi mu ngi fi moo tax nañu respecté pays bi xam ne pays bi pays pays ibrahim Ibrahima nañ ko respecté kon nag loolu mooy jëriñ ko wu rek mooy sa alkaani taxoon waaw kon nañ nañ nañ nañ respecté pays bi daal loolu laa amoon daal loo xam ne dama koy faral di digle nañ respecté pays bi respecté magu pays bi mag ñi nga xam ne lañ lañ doon doxalee ñu koy doxalee lañ doon tere lañ doon diglee ñu topp ci lañ doon tere ñu bàyyi ko loolu daal mooy jëriñ waaw hmm. amin yaa rabbi amin amin amin yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi

waaye man mosuma xool ne sama baay la am na ay maani yoo xam ne moo tax ma bëgg ko moo tax ma gëm ko moo tax ma fonk ko te moom mooy ne suñ suñ sëriñ la nekk suñ bunt ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu na lépp loo xam ne bëggoon na ko wala nekkoon na ci te muy ndigali baay radiyallahu anhu ndax moom du wuuteeg ndigali baay ci dara du ci zahir du ci baatin loola moom lépp lu ñu am wala ñu xam rek dinañ ko ci def ngir ut dégg nga de ngërmaaneem moo tax euh, ba muy wax te nii la masamel macha allah dafa nekk nit koo xam ne mag joo xam ne mag ju baax la mag joo xam ne euh, dafa jiital ay rakkam topp seen gannaaw loolu du wut lu yomb te du leen faxasal dégg de ci dara liggéey bi lépp daf ko jël teg ci suñ loxo du laajte ba ko tegee suñ loxo rek ci la wax euh, ne loolu moom euh, xelam dal na ci dina daan wax lu baat euh, wax benn baat nee soo gisee may tukki tooguma damaa xam ne ki ma bàyyi sama gannaaw man la ciy jublu bët bi set loolu lay wax waaye dafa nekk ku baax moom Cheikh Kabir nekk koo xam ne tamit jikko yu tedd la am ku lewet la ku xol bi set la ku làmboo lu bari la waaye xoyofal boppam lool yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na ko fi yàlla yàlla ko yàlla wéral waaye lii daal lépp luñ ci def moom kuy liggéeyal sëriñam rek la. Hmm. bés bi daal moom bési sant yàlla la comme ni ko daan ci daan defee waaye tamit. jox def ci occasion boo xam ne jàngale tarixa ya jàngale cheikhu tijaani radiallahu anhu jaam yàlla boo xam ne nu ko jaam gën a bare ba bëggee gën koo xam rek njëriñ di gën a feeñ dégg ci ñoom bàyyi radiallahu anhu eh, bëgg gi mu bëggoon Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane waaye tamit fonk gi mu fonkoon Cheikhu Tidiane fonk gi mu fonkoon dégg nga bi te bu daan wasifa sax nga ko daan xam bu daan wasifa ba àgg ci jawarte rek bàyyi dafay séngeem ci suuf dégg naa ko ci oustaz Barham Diop mu koy wax euh, buy wut a laasim nga gis ba ak nim ñu joxoñee ne tariqa tijaan yi moom mooy lépp te waxoon na ne almuridu sadiqu man arahu llahu tabaraka wa taala anna al wirda tijaani aw wirda laazimi euh, hiya akbarul asraari wa cheikhu tijaani aynu sirri mu ne muridu saadiq mooy kan mooy koo xam ne yàlla won na ko wala yàlla xamal na ko ne wirdu lazim bi mooy li sirru bi gën a rëy dégg de ci sirru yi waaye tamit cheikhu tijaani mooy jëmmi sirru kon mbëggeel googu nga xam ne ak fonk gi bàyyi fonkoon cheikhu tijaani fonk ko dégg nga de tariqa bi nampatal ci na cheikh hasan dem radiallahu Euh, bés bi dafay nekk rek bési sant yàlla comme ni ko Thierno doon defee ndax moom daf doon wax ne léeg-la kat mi defu ko lu may rek dëgg di ci sant yàlla ndax Cheikh Tidiane radiyallaahu anhu maqaamam bi gën a kawe euh, mooy maqaama alkatmiyatu kenn xamu ko nag kenn mënu faa taxaw waaye dañoo xam rek bés bi mu ko jot mu sax ci tarixa bi te moom mooy guddik fukki fan ak euh, juróom-ñett niki bési tey bii nii. moom it mu ciy sant yàlla di ci jàngale dégg nga tariqa bi aywa ñun ci ket mi yi mu daan def ci leen mokk mokkale lu bari ci taarixu Cheikhu Tidiane yi ba tey euh, bëri na tey ku xam lu bari ci euh, cheikh njëkk téere yi di tasaaroo yaa ngi ko xamee ci keppaar ak Mawlana Cheikh dem Deme radiyallahu anhu loolu nag moo tax euh, noonu lañ ko bëgg a mu nekk jotaay boo xam ne jotaay xam-xam la bu mu am folklore surtout ñun ci loolu la ñuy gën a dégg nga de parce que xam nga dajale nit ñi di wax naq sa xandang <laughs> ba fajar jot loolu wax dëgg yàlla duwul lu xel la moo tax toujours jaani wàll gi ñu ci gën a ñor mooy jàng ay kaamil ñi ñi profité ci jàng alxuraan sama classe nga xam ne mën naa am duñ jànkat alxuraan fexe sax ba jàng ci benn xisib ndax Cheikh Cheikh da daan digle loolu dafa xam ne taalibe tijaan bu bo taalibu tijaan bu nekk na fexe ba bu set mu jàng alxuraan jàng leen ci alxuraan ku mokkal alxuraan moom mu nee na bu mu yées mukk ñaari xisib dégg nga ci bës cheikh euh, moo tax boo demee ba léegi ci Fass buñ jullee fajar ba pare dinañ jàng ñaari xisib yoo xam ne ay xuffaas ñooy def xalqa di ko jàng dégg nga ca kaw ay borom xam ay borom boromi alxuraan ñu koy jàng ci seen mokkal noonu lañ koy defee ba léegi kon euh, moo tax bés bi alxuraan bi lañ ci gën a dégg nga fonk waaye tamit. jàng euh, jàngale gi nga xam ne moo ci am mooy euh, conférence yi ci am ñi ñi gën cee xamee Cheikhu Tidiane gën cee xamee dégg nga tariqa bi gën a xam li nga xam ne moom leen am ndax bari na ku nekk ci tariqa bi te xamuloo lan mooy soloy tariqa bi moo tax ñu bëri dañuy fooyee tarixa bi boo xoolaan mag ñi bokkoon na ci fonk giñ fonk tariqa bi am na ci ñoo xam ne àggoon nañ foo xam ne seen kurus yi ñuy wirdoo laazim bu nit feebaree dañ la koy xoojal rek jox la ko nga naan bëggoon naa ne kurus kurus kurus bi ñu yurdool lazim laa la wax waaw loolu nag yombatut kurus bi ngay yurdool bi ñu daan yurdool lazim dañ koy fonk fonk boo xam ne nit bu feebaree rek ñu xooj ko jël ndox mi jox la loolu doon métti da nga tàqalikoog yow loolu euh, daf lay wan euh, mbóot mi nekk ci tarixa bi waaye tey boo ci nekkee nag nekk ci njëriñ te xamoo njëriñ li nekk ci lu baax te xamoo lu baax li nga xam ne baaxal na ku ne baaxal na ay bandi moom moom tariqa tijaani ay bandi sax waaw ay lusus yoo xam ne <laughs> ay addu kalpe boo xam ne ku ñuy euh, ci kenn ci taalibe Cheikh Tidiane euh, koo xam ne mujj gi mu euh, muqaddam la bu mag sax ci tariqa bi moom it gis nga ci addu kalpe googu ci la nekkoon Cheikh yi ba muqaddam bi nga xam ne dëkkoon na ci seen wàll bu mu génnee àddina Cheikh dafa bind lettre rek ne fal na ko xalifa moom bandi boobu <laughs> waaw fal na ko xalifa ba mu ko ñu ñëw indil ko lettre bi foofu la daanoo rek xaal yéeg ci maqaamam bi nga xam ne moom la ko yàlla jagleel kon loolu daf lay euh, wan euh, tariqa bi ne tariqa ak bu baax la bu mën a baaxal la loolu nag moo tax euh, comme laaj bi nga ma laaj ma ñëwaat ci ne ren macha allah xam jàngale bi ak mbokk yi tamit dégg nga de dajee saaf wante te yàlla tax loolu yëpp ay njëriñ la yoo xam ne njëriñ yu kawe la am na waaye surtout conférence yi nga xam ne dina am incha allah ñaari conférence yi jiitu buñ jullee tàkkusaan ba pare oustaz Ali Ndaw dina def benn waxtaan ci tarixa bi ak cosaanam gannaaw bi Cheikh Ahmed Boucar Niang mi ngeen xam euh, mu alaaji Baaba Roqi Niang doomi Seyda Nafisa al allaama dina def waxtaan woo xam ne waxtaan wu ama ama ama solo la ci meññeeti tariqatu tijaaniya ndax thème bi moom mooy ak tariqatu tijaaniya dégg nga euh, wala al al wiru tijaani dawaa un li adwaa il qulubi wal gaflati wiru euh, tijaan yi dafa nekk garab boo xam ne day saafara wala nga ne lugg boo xam ne dafay lugg jàngoro baa moom mooy sàggane yàlla ak jàngoro baa moom mooy dégg nga de jàngoro xol yi thème bu jara déglu la comme nuñ ko daan defee imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé euh, yónnee na incha allah ren dina teew barab bi namoon ko lool te yàlla na di teew ci bépp jotaay boo xam ne rek dinañ ko defaraan miin ak yeneen jotaay mu ànd ak kattan ak wér incha allah tëj dégg nga de jotaay bi comme niñ ko daan defee euh, gannaaw boo xamee ne xalifa bi Cheikh biir joxe na kàddoom euh, bu guddigee incha allah moom it ren am na waxtaan wu ñuy laytaaye xaaraale Cheikh Baba Lamine wala ndawam bi nga xam ne moom lay yónni Cheikh Habib di ko def ci Cheikhu Tidiane ak jaar-jaaram. fàttali nit ñi Cheikhu yi ba Cheikh Baba Lamine ñëw euh, tuuse leer yi nag euh, anwaaru tijaaniyatu bi nga xam ne dañ koo jaxaseek dégg nga de anwaaru ya ba mujj mu nekk benn benn leer goo xam ne moo gongee ko dégg nga de ci xadara ba làmboo lépp loo xam ne nekk na ca xadara ba ci ngëneel ak ci mbaax mu euh, baaxe ko jaamu yàlla yi moo daal guddi guddi goo xam ne la guddi gu am solo la te mboolem comité bi nga xam ne ñoo amee organisation bi ñu ngi veillé ci daal nit ñi nekk ci jàmm ak ci dal waaye tamit ba seen nopp yi tamit mën a dégg ndax xam nga yow mi sàll yow sàll mii moom euh, foo xam ne euh, xam nga fa doy waar looru fa tuuti xiif fa wala nga mar yaakaar naa ne xadis ya la muy rafet rafet ak laaya ya ak xissa yaak yooyu noonu yow doo ci dégg dara yaa ngi dégg yaa ngi li nga bëgg a dégg daal mooy ku naan la boolab ceeb waaye commission bi tamit ñoo fi taxaw nañ ci ne incha allah loolu yow du la dal kon comme que du la dal du fi dal kenn waaw yaakaar naa ne daal moom <laughs> lépp loo xam ne daal euh, njaboot gi am nañ ko taalibe yi am nañ ko ci seen doole ak ci seen alal ak ci seen soppe yi def nañ ko pour berndeel ko mboolem gan yi nga xam ne ñooy gani Cheikhu Tidiane yi radiyallaahu anhu di gani Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallaahu waaw dénkaane gi ma ciy def mooy ñu toog waxtaan toog waxtaan ndax tamit ñun ñëpp ci réew mi leen dëkk te xóor nañu tamit ne euh, oto yi nga xam ne moom lañuy ñuy waxtu wi nii euh, dafa jamono passé na ko loolu moom ku nekk xam na ko waaye nag koo xam ne yàgg na ci mbir il faut état bi toog ak acteurs yi ñu waxtaan nu ñuy soppeewaatee da nga def oto yi benn mu méngoo ak jamono nga xam ne ña ca nekkoon tamit dinañ ci mën a dugalaat seen biir oto yi wala ñu boole leen sax ñuy benn actionnaire boo xam ne état bi jàppale leen ba nga xam ne dañuy ay société yoo xam ne société yuy yu transport la oto yu mucc ci ayib kaar yu mucc ci ayib oto yu ndaw yu mucc ci ayib nga xam ne euh, sécurité dina mën a am ci wàll googu waaye route yi tamit ñu gën koo gën koo defar gën koo gën gën koo yaatal gën a yokk liggéey boobu noonu loolu tamit dina doon ci nga xam ne mën naa wàññi accident bi waaye accident yi boo xoolee nag li ci ëpp mooy euh, discipline bi indiscipline waaw gën a benn waaye mu ne chauffeurs yi dañ leen war a defal formation loolu dëgg la formation boo xam ne formation yi jikko def ciy bokk boo xoolee euh, chauffeurs yi njëkk yi ci garage yi mag ñi leen daan yar da ngay dañuy ànd ak dal dañuy ànd ak euh, am yar am teggin ba bu ñuy dawal sax da ngay gis ni ñuy téye volant bi waaye léegi xale bu ndaw wax na benn benn loxo ngay téye sa <laughs> moom ngay téye volant bi di euh, defee nu la neex dawalee nu la neex wala di njëkkalante. yu bëri loolu moom mooy mooy indi dégg nga choc yi choc nag moom ak euh, télé bi ñoo ànd ndax am na loo xam ne ndogali yàlla la bu ñëwee dañ koy nangu waaye am na loo xam ne tamit jëf ak nit da cee dugg kon yooyu lañuy fexe rek ñu rectifier ko te waxtaan am waxtaan daal na am waaw bu kii xëcc fii xëcc fële di nga ko def par force wala du ma ko def yooyu daf ñuy fii daf ñuy tardel rek buñ toogee waxtaan waxtaan woo xam ne luy jëriñ askan wi la ndax wax dëgg yàlla askan wi dem di ñëw war nañ leen teg ci condition boo xam ne tamit seen bakkan yi dina gën di mën a dégg nga da ñoŋ bu baax a baax loolu daal laa ci laa ciy wax. am maa ñu ci wax ay mbiri jinne ak yooyu noonu wax dëgg yàlla man loolu xawma ko waaw te pays bi xam ñuy wax na affaire ay jinne la ak ay nangam ak yooyu moom yooyu moom suñ suñuy wax la rek waaw. ni nga xamante ne ni moom lañ commencé nag mooy dem ci xalifa saaxibil fayda xaadimul umma mu joxe ndigal. ñu dem ci fadilatu cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne mooy dundal guddi gi moom it mu joxe ndigal naka noonu ñu dem ci fadilatul imam Seydi Ahmad Tijani Seydi Ali Cissé moom tamit mu ñaan dem ci porte parole Cheikh Mahi Ali Cissé moom mu ñaan ñu ko defee ñu commencé liggéey bi ànd ceeg mboolem média yi nga xam ne ñoo nekk ci xadara bi lu ci mel ni Alfayda Baye FM ak euh, Fayda Tijaniya euh, dégg nga euh, Boom TV ak mboolem seen majmua boobu nga xam ne waa média fayda bi yëpp média de la xadara ñoom ñoo bokk nekk benn pour liggéeyal pays bi ci lu ëpp solo wala ci lenn lu ëpp solo luñ koy liggéeyal mooy ci wàllu communication tasaare njàngalem baay tasaare mbindam tasaare ay waxtaanam pour nit ñi gën a mën a sax ci yoonam gën a mën a topp ay ndigalam gën a mën a jàpp ci li nga xamante ne nii moom la jëlee ci Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu naka noonu génn leen tam dem giseek télé yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi jëflante ak ñoom woo ci kat mi yeegi am na ci tele yoo xam ne niki TFM am nañ fa émission yoo xam ne ñaar la ak bande annonce boo xam ne dawal nañ ko fa fukki fan naka noonu bés bi tey dinañ teew ñoom it jël euh, jotaay bi te dinañ ko teg gannaaw gi naka noonu lu TV naka noonu wal fajiri ak 2S mboolem télé yu mag yu nekk ci réew mi rek dëgg-dëgg am nañ taxawaay ci bés bi ah, dëgg-dëgg ak rajo ak réseaux sociaux yi tamit naka noonu xale yu xarañ yu am mbëggeel ñoom it noppalu guddi ak bëccëg di jaarale li nga xam ne mooy xew-xewu kat mi gi di ko yëgal nit ñi di jàllale waxtaan yi nga xam ne moo ci passé waaye di jàllale ay émission yoo xam na ay borom xam-xam ñoo ko taxawee alhamdulilah ba tey yaakaar naa communication bi tàllalu na ah jotale na ci mboolem Sénégal ak ci biti Sénégal li ñuy dénk nag mbooloo mi nga xamante ne ni ñoom ñooy ñëw pour fekkee si bés bi ne leen liñ leen di wax mooy ñu fàttaliku xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu wax innamal amalu binniyaati jëf yi mi ngi amee ci yéene ñëw gi na nekk yéene boo xam ne màggal suñ seriñ màggal bés bi nga xam ne ci la jotee maqaamam bu kawe boobu mooy maqaama bi nga xam ne yàlla nëbb na ko mboolee mbindeef yi ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa ñu di ko màggal nag wàcc na ci mashahid bu Seydi Ali Harazim mu ne mboolem tijaan yi buñ xamoon bés bi lu ci nekk ci ay xewal ak ci ay barke dinañ ko jàpp at mu jot di ko feete ba nga xamante ne ni nag Cheikh Ibrahim tëbb na mbëggeel Cheikh Tidiane góor yàlla boobu nga xam ne moo ko defaral boppam moo ko tarbiyaal boppam bëggal ko ne ko dina nekk waaris Muhammad yi bëggal ko ne ko dina am mbir mu màgg ci tariqa bi mu bëggoon Cheikh Tidiane mbëggeel goo xam ne mbëggeel gu jéggi dayoo la doomam yi mu dippee ko doomi Cheikh Tidiane yi ak ay muqaddamam dëgg-dëgg ah yàlla may ko muy xencu Cheikh Tidiane ci bés yëpp ci feeñuwaay yëpp ba yàlla may ñu mu génneel ñu guddi gi nii daan di ko dajale mbooloo mi dajale taalibe yi di joxe alalam di ci tasaare ngëneelu tariqa bi ci waxtaanee. dund Cheikh Ahmada Tidiane radiallahu anhu dégg nga di ko defee fële ci làmb tukulóor ba tey jii nii mboolem euh, mboolem euh, tijaan yi fu mën a nekk ci àddina ñi ngi defal ketmiya di waxtaanal di ci waxtaanee Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane ak ngëneelu tariqa bi dëgg-dëgg euh, liggéey bu am solo la yonent bi wax na ne man sana sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyamati dégg nga képp koo xam na sos na sunna su moom ak képp ko def loolu rek dégg nga yàlla dana leen may dégg nga ci yool bi kon dégg nga boo gisee njaboot gi am ci itte jaayante ci di ci def seen alal seeni fan seeni guddi seeni bëccëg pour jaar ci tànk bàyyi rek la ndax dina bàyyi bu baaxee rek dégg nga ay doom dinañ ci topp wala baay doon na wax diinay baay yàlla na nekk lu baax ndax baay lu ëpp rek doom lu ëpp rek baayam lay def royukaay njaboot gi ñu ngi roy seen baay ci bëgg Cheikh Ahmad Tidiane ci taxawal guddi gi nii dëgg-dëgg di ko taxawee ci xam-xam ak ci mbëggeel ak ci yaakaar ay nafaxaat ak ay tëb yoo xam ne dëgg-dëgg guddi gi loolu dana ci wàcc yal nañu ko yàlla defal defal ko mboolem Tidiane yi mboolem julli ñi ñu mën a nekk ci àddina yàlla feesal ci suñu xool leeru Cheikh Tidiane ak mbootam bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen gërëm bu baax nag yenn waa média bi dëgg-dëgg kenn amul seen fay ndax lépp lu xew ci xadara bi ngeen déplacé wu dem te utu leen ci dara lu dul ngir maane Cheikh Ibrahima buñ leen joxee xaalis ak bu leen ko joxut yéen gis ngeen ne liggéeyal bàyyi ci ngeen mën a am seen càkkuteef doomi aadama yépp ci liggéeyal baay ci lañ mën a amee seen càkkuteef nga ñu rëj rëjloo ak nit ñi ci liggéeyal baay ci li nga xam ne mooy communication bi nga xam ne yéen a ngi jàllale ahdaas yu xew ci pay bi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla barkeel seen yëngatu barkeel seen dal yàlla barkeel seen tere yi dem ba nekk ay chaînes yoo xam ne chaîne international yu mag a mag a mag a mag a mag a mag a mag la matériel yi nga xam ne moo xaw ci àddina yal na leen ko yàlla jox bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa seen liggéey rafet na te xool ngeen ni liggéeyee ak sellal ak bëgg yal na yàlla fay leen loolu wa ma zalika alallahi bi aziz wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dara ci bés bi ak solo bi waaye fàttali ñu dara ci Cheikh Thierno Hassane Déme Al Fouti bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Eh, bokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax eh, di leen tàttagal ci bés bu màgg bi gannaaw buñ nuyee kilifa dëkk bi di mawlaaya cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass ak eh, cheikh al imam Seydi cheikh Ahmad Tidiane ak mboolem kilifa dëkk yëpp di nuyu suñu xalifa cheikh Mouhamadul Kabir ak mboolem rakkam Mouhamadul Habib ak cheikh Abdul Baqi nga xam ne mooy jawriñu kër gi di taxawaay taxaw ci taxawaay bu bu bu rëy bu fés jiite ñun ñëpp ci liggéey bi ci côté yi côté bu nekk nag e, guddi gii nag ñun dañu ci nàmpatal e, suñu waajur di suñu sëriñ di suñu murabbi suñu muraqi moom moo njëkk a feeñal guddi gi fii ci biir réew mi ba tey penc moo dem ñu ngi ko fay taxawal loolu yëpp ci mbaaxam ci xam-xamam ak ci jeexam ci cheikhu tidiane radiallahu anhu te xam tariqa bi itam néew na muqaddam boo gis moo amee xam-xam comme ni ko amee woon ci yoonu tidiane eh, loolu moo tax mu ko doon def fii ak ay bokkami tijaan yoo xam ne sax ñoom ñëpp nekkuñu woon taalibe baay ñoom ñoo doon bokk di ko def bi demee it eh, njaboot gi donn ko continuer di ko def fii ci kër gi depuis at yu bari léegi ñu ngi koy def loolu yëpp nag yokkut rekk la mbaax ci kaw mbaax ndax Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu comme ni ñu ko ceer doon wax mu ne Cheikhu Tidiane suuf la wali yëpp ci koom lañ sax loolu mooy firi li Cheikh Tidiane di wax kullu suyuuxin axasu anni min asli sahabati ila nafqi fi suur mu ne mbooleem sëriñ yépp ci man lañ jëlee seen yoon yi li ko dalee ca saxaaba yi nag bo bés penc feneen it mu waxaat fa ruuxi wa ruuxuhu sallallahu alayhi wa sallam ka xaazayn fa asaara ila shababatihi wa wustaah min yowmi xalaqa allahu ila nafxi suur mu man sama ruux ak ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi mel ni ñaari baaraam yi mu tàllal baaraamam sànnekaay bi ak bi ci digg bi mu ne noonu la ruuxam meloon ak ruux yonent bi dipp yàlla bindi mbindeef yi bu bés penc noonu la mel mu ne ruuxuhu sallallahu alayhi wa sallam ruuxu sallallahu alayhi wa sallam yamuddul ambiya wal mursalin ruux yi tamuddu al awliya wal aqtaab wal aarifin mu ne ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy tëbb ruuxu yonent yëpp mu ne man nag sama ruuxu mooy tëbb wa awliya yi ak aqtaab yi ak aarifina yi eh, kooku nag kooku guddi googu nga xamoon ci la jote woon maqaamam bu màgg boobu nga xam ne comme ni ko ibnu baaba waxee wa fil muharrami gada gawsa rasid xalifatan al muhaymin al majid uxtiya zaaka seexuna bi arafa xaqaaku man man xaqaahu man arafahu man xaqaqahu arafa shahrin wa layaalin irtaqa ila maqaamihi al aziz al muntaqa maqaamihi al maqtuumi an kullil wara siwa nabii ma waraahu wara e, guddi googu la joxoon jotoon maqaama boobu nga xam ne dañ lépp lu fa xewoon lépp mbóot bi fa wàccoon dañ ko nëbbu kenn xamu ko lu mooy moom Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak borom bi nga xam ne moo bind ñëpp guddi googu nag mooy guddi gii nga xam ne moom la ñuy màggal Cheikh Tidiane waxoon ne taalibi Tidiane bu ñu xamoon li nekk ci guddi gi li ci wàcc ci ay ngëneel ci ak ay nafaxaat ak ay leer kon danañ ko jël di ko def feet moo tax Tidiane tey yàlla ubbi seen bët jaarale ko ci Mawlana Cheikh Hassan Deme radiallahu anhu tey bu ñu ngi koy màggal mbooleem ci àdduna foo dem fu Tidiane ya nekk fu nekk ñu ngi ko fay màggal loolu nag sant yàlla rek bi nga xamee ne yàlla daf ñu boole góor googu nekk góor gu mag borom xam-xam ku yaatu bëggu ñëpp Ceerno lu nekkoon kéemtaan ci moom boo ñëwoon ci jeetaayam ñëpp nga fay fekk moom xamme wu doon kan mooy taalibi baay ak ku doonut comme ni ko Baay doon waxee mu ne moom balaa xam ne tijaan la rek mu jël kurusam bi toog di wirdu laaj Ceerno melo boobu la amee woon boo xaritam yi nga xam ne ñoom la doon àndal foo ko gis-gis leen kenn rek moo ci nekkoon taalibe ñi ci nekk yépp yeneen kër lañ aju waaye loolu yàqu dara relation ak ñooñu noonu itam ñi nga xam ne kilifa yi nekkoon fii ci dëkk bi bu nga xam ne mu gi Cheikh Mountakha Tall ci boppam moo jóge dakaar dajale tukkulóor yi aju ci moom ñëpp ne leen dënk naa leen Cheikh Alassane Dème mooy seen kilifa fii eh, noonu nag kooku nag kum yar ku nekk loolu nga war a meloo li ma koy wax toujours ma ne taalibi baay bu nekkee ci bërëb jubawoot ak ña fa nekk ci moom la ndax nit ñi ñëpp ñoo bëgg lu baax waaye xanaa ñàkk xam rek waaye boo dëkk ak ay nit gisuñ la ci loo xam ne dañ la ciy xeeb lépp lu diine santaane yaa nga ca nga raw leen ca mën leen ci maslaha yi ñu ngay defante ak diggante digganteeg nit ñi nga mën leen ci loolu ñooñu ñëpp la ñoo lay bëgg loolu nag ñun ñëpp noonu lañu ñu war a mel te yàgg naa di ko wax ñun fii ci suñ kër gi waruñu jéggaani lenn fenn ndax Thierno wax na ko fi bés kenn ci ñu nekkoon fii ci kër gi mu ne ko diw bugguma man nag bugguma nit di jéggaane leneen feneen di ko indi fii ndax ñun ñëpp biñ fi nekkee kilifa yi ñu tombeloon fii ñun ci jamono Thierno amul kenn ku daanu ñëw fii ci Thierno toog ak moom di ko laaj ay masala mu koy tontu masala ci côté yëpp nag. waaw ci loolu ci téer téeram bi mu taalif bi ñuy wax eh, miftaaxul wusul ila xadaraati rusul noonu la deme waaw ndax ay woy ñoo ci nekk woy yi Mouhamad ki nga xam ne moo Tijaan ibnu Baaba ñoo bokk baay moom moo woyoon woy ci suluuk woy yi nag fasu lool muqaddam naar yi ñoom ñoo dajaloo ñu ne ñu sant Ceerno na def eh, na def eh, sarxa boobu mooy téeram boobu ñuy wax miftaaxul wusul ila xadaraati rasul lu ko indi woon it dafa am kenn koo xam ne ci yeneen kër yi moo doon jéem a sarxa téere boobu man gannaaw bi ma demee ca dëkk booba xawma ko woon waaye bi ma demee ca dëkk booba ba gis téere booba xool ko ma xam ne ah, lii nag ndek moo taxoon naari wax ne na ceerno sarxa téere boobu ndax sarxa boobu moo méngoog woy yi li ñuy wax ndax nit mënoo wax loo xamut loo bugg-bugg soo xamul mbir mi mënoo cee wax mënoo koo def mu baax kon nag ñu ngi sant ñu ngi sant yëpp média yi nga xam ne ñooy média Médina yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen taxawaay ndax toujours guddi bu xewee nii ngeen ci nekkee ak ñun dale ko ci suba bo guddi gi ba set yéen a ngi ci ñun di ñu jàppale di jottali suñu kaddu yoo xam ne ñun bu nekku dal ñu yéen du fa àgg kon ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla bu baax yàlla yàlla yokk leen yal na yàlla seen liggéey yal na yàlla def seen média yi mu nekk média yi international nga xam ne dañ koy seetaan bépp ci àdduna bi yàlla mën na loolu yàlla ko def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Allah Allah ya Allah Allah Allah Allah Allah ya Allah الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله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 الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله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 wa nawara basiratahum bi nuuril fahmi wal idraak wasalaatu wasalaamu ala manbai lulumi walmacaarifi seydina muhammadin nuurul xaqiqati wa siru saria wa ala aalihi atayibiina ataahirina wa asxaabihi alkiraami alfaaisin ñi ngi sant yàlla yàlla mi nga xam ne moo feeñee ci lawoloom feeñ ci laaxir feeñ si zaahir feeñ si baatin waaye feeñ si mboolem melokaan yépp di yëkkati kàddu si ndigalu suñu xalifa suñu bay suñu sëriñ di xalifa Cheikh Hassan Dem radiallahu anhu ak mboolemi ay toppam ay naibam ak mboolem usaru Cheikh Cheikh Dem radiallahu anhu ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara di ziyaara bi di koy jox si loxo sëriñ bi muy Cheikh Mouhamadul Kabir mu jotal ko famille bi yëpp góor ak jigéen mu nekk ziyaar boo xam ne ziyaar istimdaad ziyaara boo xam ne amuñ sikki ne ziyaara bu ñu nangu la parce que ñëw neen si bës bi nga xam ne mooy bésu suñu sëriñ si tariqa di waliwu yàlla bi nga xam ne mboolem waliwu yi yëpp yaa ngi dem si géej jëm ci leen naanee parce que moom moo wax ne mu ne ana seydul awliyaa yi man maay sangu mboolem waliwu yàlla yi kon képp koo xam ne rek yaa ngi naan wala ngay yëngu si bépp turux boo mën a doon rek si kaasam wala si géejam ci nga tànqee sa kaas bu ndaw googu noonu nandalee ko say na ànd door muy Mawlana Cheikh Ahmed Tijani Sarif radiyallahu bi nga xam ne moo waxoon si bés bii gannaaw bam jàkkurwante ak maamam ba di yaakaaram muy mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi mu laaj ko na ko yow sang bi fii ma toll nii ndax am na benn wëliwu yàlla bu fi ma a yegg si yonentu bi sallallahu alayhi tontu ko na ko waaw abdul xaadir jeylaani ak ibnu arabil xaatimi waaye am na yeneen jaamu yàlla muy ay wulu yàlla yi nga xam ne muy imaamul yi ak alxasan al bachari ñoo neen ba si xurbul maqaama bi tàngooru maqaama bi attanuñ ko ñu dellu gannaaw bés bi ci la yonent bi defoon baaya ak nga xam ne mooy Mawlana Cheikh Tijaani ak mboolem yonentu yi ak mboolem xulafaaw yi ak mboolem saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa teg loxoom si loxo ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Tidiane yonent yi teg seen loxo eh, xulafaa yi saxaaba yi ñoom ñëpp tegante seen loxo si gàttal ñu bàyyante wax aaya bi inna yu yubaayi'unaka innama yubaayi'una allaha yadullahi fawqa aydihim kon bés la boo xam ne bés bu bari ngëneel la bés bu bëri sekkere la moo tax képp ku yàlla may rek bam ñëw si bés bii nii incha allahu rabi bépp xaaju boo xam ne indi nga ko incha allahu rabbil alamin mu nekk xaaju boo xam ne bu dëggu la si yow te nga gëm ki nga xam ne mooy borom bés mi Mawlana Cheikh Tidiane sellal sa mbëggal si moom doo fa jógee mukk lu dul na yàlla faj na sa xaajo si ndigalu ki nga xam ne moo sunnaal bés bii si barkeem si sirroom si mbootam mi Mawlana Cheikh Xasan Dem radiyallahu moom mi nga xam ne moo sunnaal bés bi gannaaw ba ko Seyda Ali Harazimi radiallahu anhu feeñaloon si kitaabam boobu si téeréem boobu waxoon nit ñi junjoon leneen ne leen am na bés boo xam ne mi ngi ñëw muy bés bii nga xam ne mooy leetul kat mi bii nii mu junjoon ko waaye ba mu ko junjee ba tey nit ñi mi ngi mel dañoo gëlëmal seen xel yi ak seen xol yi ba mënuñ ko feeñal waaye nag ku ci nekk rek am na koo xam ne moom la ko yàlla jegleel alfadlu bi yadillaahi yutihi man yacha muy Maulana Cheikh Hassan dem moom la yàlla may lii muy leetul katmiya tey boo demee Mali boo demee Niger boo demee Burkina boo demee boo demee euh, Nigéria boo demee Ghana boo demee Cameroun foo mën a dem si Afrique a fudul Afrique ñëpp ñi ngi màggal bés bi waaye sunna bokku ko dekkil moom mooy kan mooy boroom saal bi ñu toog ak moom muy xalifaam te dañu wax na alwarudu sirra abihi mi cheikh mouhamadul kabir te moom mooy cheikh hasan dem suma ma tuddee cheikh mouhamadul kabir tudd naa njaboot cheikh hasan dem gi yëpp baayam moom moo sunnaa lii ma waral tey ku nekk tey si àdduna bi mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy màggal xataa si ndakaaru xataa si Gambia fépp si àdduna bi ñu ngi koy màggal ngir lan ngir mbóot bi nga xam ne Cheikh Hasan Dem radiyallahu feeñal na ko kon yal nañu yàlla taas si barkeem ba lépp luñ fi wàccee si ay salaatul fatihi si ay turu yàlla bu mënta doon ak alxuraan yu ñuy wàcc ñu yëpp jël nañ ko jox ko hadiya Cheikh Hassan Demba Diallo mu jël ñu joxal nu ko Cheikh Tidiane mu jàll ñu ko si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaan yàlla lépp luñ fi yaan ñaan rek yàlla na ko yàlla nangu yàlla dindi jafe-jafe xat-xat yi yàlla def jàmmu senegal def ko si àdduna bi yëpp jullit yi nga xam ne ñu ngi leen di not di leen jaay doole yàlla na yàlla jël doole dooleem gu gu rëy gi notee ko mbooleem luy éeféer képp koo xam ne mi ngi not àdduna bi ñuy wax ashadu an laa illa allah yal na yàlla yal na doole yàlla ñëw not seen nguur googu bi jaaye rasulullah sallallahu alayhi wasallam maa ngi ziyaara ñëpp di ziyaara télévision eh, bi nga xam ne macha allah télévision faydu bi la eh, di eh, isma ruuxul adab tv ak baram Barham Universel Media ñoom ñi nga xam ne tey lépp luy taaru pays bi rek alhamdulillahi rabbil alamin ñi ngi koy tasaare nu mbir mi tasaare wu si réew bi yàlla na yàlla defaree loon seen mbir yàlla sàmmu leen watu leen may leen xabuwul dem ba may leen télévision yi nga xam ne seen nawle yi rek ñoo ko am si àdduna bi si bakk sëriñ bi di Cheikh Mouhamadul Kabir wa masa ni ngi ziara tamit mbool doomi Cheikh Ibrahim doomi Cheikh Hassan dem yi fi teew mu Cheikh Mouhamad Taha dem mi nga xam ne moom it ñëpp gis neen maanaam ay ay émission yi nga xam ne mi ngi koy jaalale si leetukat yi bi yëpp ngir xidmaal baayam rek Cheikh Hassan Deme Seyda Umul Umu Umu Kalsoum Deme mi nga xam ne moom it chaque jour chaque chaque katmiya rek mi ngi mi ngi ñaax doomu aadama yi tamit macha allah rabbi si katmiya bi ñu xam lan moo ci nekk li ci wàcc si ay anwaar ay ay fuyudaat loolu dañu wax na laa xarwa parce que seen baay ku ko xamoon xam ne ne Cheikhu Tijaani rek radiyallahu anhu moom la bëggoon kon da ngeen a teg tànk fu seen baay tegoon tànkam ñu ngi leen di yàlla yàlla yàlla sàmm leen si barke sëriñ bi muy cheikh Mouhamadul Kabir ak mboole mi ay rakkam wa ma zalik allah bi azizin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi gërëm bu baax suñu rakk Cheikh Omar ci ziyaara bi mu xam ne ñëw na ci bësam ba ci leeratul katmiya mu ñëw ànd daayiraam bi yëpp ñoom ñëpp Samsul Maarif ak ay xarit ak soppe yëpp ñu ñëw tey fekk lañu ju bés bi ñu koy ndokkeel moom bu baax ñu koy ñaanal yàlla yàlla defal ko tawféex yàlla defal ko taysiir defal ko nasru ci lépp lu muy yëngu yàlla yokk mbooloo moom yokk maqaamaam yàlla ubbi ko ko ubbi bu yaatu yaatu def ko ay milliards yu di jeex yaa bi ci barka Baye ci barka Thierno barka Cheikh Tidiane radiallahu anhu ñu ngi gërëm bu baax di koy sant di sant mboolem ñu mu àndat sant yàlla bu baax ci bës bii nga xam ne bësu Cheikhu Tidiane la weer wi lay wax yëpp weeru Cheikhu Tidiane la kon amul sikk ne lépp lu ñaan yàlla yàlla nangu ko kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla dafa ñu tawfeex yàlla nangu ñu suñu ziyaara nangu na lépp lu ñuy yëngu ci bës bii lépp luñ ci ñaan lépp luñ ci sàkku yàlla nañ ko yàlla yombal yaaram ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ci barka Baay yaa rabbi ci barka Ceerno yaa rabbi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa atihina ma ulika wal xaatimi li ma sabaq nasir alxaq bilxaq wal haadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari azim subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin صلاة الله ثم السلام فطرها